yéene tontu laaj gi ci people euh, ñu ndëgandiko ko tout de suite rek ñu war a feggoo ak moom mi lee di Cheikh Ahmed Cissé donc euh, buñ ci paree dinañ ci teg euh, music music nag ki nga xamante ni moo di DJ Maxu moom it war fi daral ndaanaan kullu kullu fatrin ji Pam Boub mu Serigne Saliou Pam Boub mu Serigne Saliou qui n'est plus à présenter ci kanam tuuti moom bi dina ñëw ñu xool bu baax a baax jamono ji ci lu muy yëngu ak wàccaayu gàmbu geeg yooyu fu mu ci toll après actualité daal di tëj en beauté mais mën nañu jëli tout de suite people di ko faram ko alors euh, comme di leen ko Fatima ki dee waxee rek mi ngi dalal euh, Cheikh Ahmed Cissé aujourd'hui donc euh, Fatima dañ leen di bàyyi rek ngeen dugg ci waxtaan bi. mi ngi noonu gannaaw ba ñu la nuyuwaatee rek euh, Ahmed Cissé jamono yi nag mën nañu ne yaatee bës bi ci réew mi ndax li ñu lay dégg bari na li ñuy sax gën di bëgg di gis mooy di la taaj ngay wax ni mbir mi demee mm-hmm. gannaaw coow li fi am ci lu ñeel mbirum Kaliphone Sall ak Adja Thiaré mu mel ni dara umpale ci ndax la la fekk. lu ma ci d'accord euh, mën nga mën nañ ci ñëwaat rek rapidement pour mën a évoluer. waaw parce que gis nañu ci vidéo nga nekk ci oto di waxtaan ak euh, Adja Thiaré muy yuuxu di def ay yenni mais euh, loolu lan la lan mu fa xewoon. li xewoon mooy Californie la am lu ma war a defal ma woo ko téléphone gis ne ça donc ni may insister noonu ci la. déggaat Californe mu wax ma ne xale bi xale bi ma ne ko ban xale mu ne ma xariti Mariama bi rek ma coupé woo Mariama Mariama kenn la ku xamanteeg suma rakk nekkoon fii ndakaar di jàng am problème mu dëkkuwaay ñibbi Thiès bi ma ko suma rakk waxee hésité tu ma sax mooy xalaatuma ñaari yoon ma ne ko jox ma sa yaay mu jox ma yaayam fekk am na ku ma waxoon ne naa ko wutal fu mu dëkk parce que kër gi dafa xaw a cher. mu ñëw pour dëkk kooku bi mu ñëwee nag euh, kooku génne di ko jotuma ko ci la àndaaleeg Adja ci kër gi. foofu lay war a xamante Californie mais du man maa leen présenté ba ñuy jëlante numéro yëguma mais suma kër la ñu tase. d'accord donc ci laa woo Mariama boobu ñu dem fekkee Californie ak Adja ngi taxaw ma fekk fa yaayam fekk fa vigile bi. ci ban anam nga leen fekkee. anam bu naqari ah ñu ngi nàcc euh, ñu ngi am ay ñaas ñaas seen kanam yaayam a ngi taxaw ci laa leen séparé maa ngi fekk loxo. xale bu jigéen bi mu ngi téye mbubbi kali bi ñaar nii yaay ma ngi téye loxo xale bu jigéen bi den si laa kali mu bàyyi ma séparé leen na ko noppil ci la noppi may wax ñëw ci Adja rek mu agressé sama di ma dóor you a ngi taxaw mm-hmm. yaayam na ko bàyyi ko ci la ko yaayam téye dëj ko mu toog donc may waxtaan lan la di laajte muy saaga rek di saaga mel ni koo xam ne nekkul mm-hmm. den ci la kali déplacé wu dem ooy gendarme dugg na lee ñëw coow daal am na fa. ci laa dem toog ci kanami oto bi ginnaaw bu ñu rek leen ma ne kaay la ñu dem police yaay mu ne li mu sol mënul dem ci laa toog di ko xaar pour mu dem solu ñëw. foofu noonu bugg naa taal oto bi ay yoon xale bu jigéen bi di pel suma loxo di ko fay même vidéo bi boo ko seetaanee léegi léegi nga gis maa ngi dem ci caabi moom mu ngi fay. Hmm. buggutoon ñu dem. donc ci bugg ñàkk a dem boobu dóoraat na ma foofu yaay mu ngi taxaw dóor ko benn pour mu bàyyi ma ci la ko yaayam ne bàyyil nit ki. li moo fa xew ci vidéo bi mais vidéo bi Kali moo ko jël man xaw ma ko yéguma ko moo ko jox ay nit tàgguwul ma biñ ko partagé wax naa ko ne neexuma bi ma jégalu ma baal ko parce que xaritoo lu ne da ci am. d'accord léegi est-ce que yow sa loxo yëkkatiku na dóor li ma njëkkee mooy moo ma dóor. Mhm. ma bàyyi mu dóoraat ma fayu. Adja moo njëkkee loolu laay wax ci PV loolu laay wax ak procureur. waaw bi ko dóor mais fayu na. fayu nga bu baax. d'accord causes et blessures yi ñuy wax kon yow mënoo ci génn wala. non non non. man mënoo ci génn. non non non du mënoo ci génn mais li ma def man. Hmm. nit su ragalee yàlla sax du laajte loolu. comment ça. ma doon dóoranteeg Cheikh Tidiane. Hmm. Hmm. mu dóor ma lu bari ma dóor ko benn kanamam bi yëpp yàqu. deret di génn. mënuñoo wax ne benn dóori Cheikh Ahmed la. mais yow lan moo lan moo tax donc. ñu moom mm. kanamam bu ñu xoolee li nga xamante ni moo nekk ci kanamu Adja Thiaré bu ko comparé ak sa bos yow naan kenn laalu la. <coughs> si en tant que jigéen. est-ce que jot euh, matul woon tamit même su fekkee da lay dóor tant que jigéen nga bàyyi mu sedd wala xëy na situation bi ko fekk nga arrangé mais pas nekk di fayonteeg moom aussi jigéen la. non sa xalaat. waaw en tant que jigéen laa moom laa la mais en mm-hmm. tant que jigéen waroo seq ak góor ba di ko dóor. d'accord. Mm-hmm. te ba tey suñ taxawoon ci kanami procureur mu def lim def ma defaat la ma defaat am na am na lu hmm. parce que boo non dafal nànk ñoo ñu wax parce que bu fekkee ne da nga ne yow yow déjà histoire bi fa mu fa mu la fekk témoin nga woo nañ la mais euh, jigéen fa mu toll euh, ñu ñu ñu li xew xew ci oto bi ba ay feram dagg situation bu mu nekk tey ji war nga xam ni kii nekkul benn comprendre nga mais dóor bi mu la dóor aussi dóor yim la dóor dóor yim la dóor aussi yow mënoon nga ko neutraliser sans pourtant dóor ko danga wax benn baat léegi danga nga ne dama ko dóor bu baax sama fayu bu baax sax fayu bu baax boobu benn la ñaareel bi nga ne bu procureur taxawoon bu taxawoon taxawoon ci procureur mm-hmm. la mu def bu ma ko defaatee ma dóor ko ci kanam procureur mm-hmm. mais loolu nga wax tey loolu c'est grave benn gis nga euh, aussi euh, yow invité naa la da nga am injustice boo dund mun na invité la ci plateau bi parce que bëgguma injustice man mm-hmm. man maa la njëkk invité la fii ci plateau Walfadjri parce que boobu gis naa ne da nga subir injustice ñu dóor la mu invité la ci plateau bi pour loolu mais aussi man jàpp naa ne euh, ci dossier boobu aussi yow bu ñu entendre Kali mm-hmm. yow dañ la war a woo ci sa xalaat non ci xam nga tax parce que bu ñu basé woo ci li nga wax léegi nii mm-hmm. Cheikh j'ai pas de problème avec toi personnellement non mais dama jàpp na tey jii mm-hmm. yow fu ñu woowee Kali yow war nañ laa woo parce que aussi dóor nga xale bu jigéen bi te dóoru jigéen buy débat yi di dóor mm-hmm. bokk la góor gu téye gu dóor ko ba pare taxaw dëggal ne dóor naa ko bu baax te bu procureur taxawoon aussi la wax wax ma la mu def ma la ma la ma defoon ma def ko ci kanam procureur mm-hmm. loolu aussi manque de respect la envers envers envers la justice aussi parce que jaay fit jaay fit non déglu ma rek jaay fit aussi ak jaay man la mm-hmm. warul mën a tax aussi ba nga ba nga wax yenn yi au contraire da nga waroon regretter yow dóor bi nga ko dóor parce que ku xool tey kanamu kanamu kanamu aja aji caare bi ñun ñu yor rakk yu jigéen wala suñu sœur yi mais aussi da ngay am gàcce parce que jigéen tooñ nañu ba tàyyi nangam nanga nangam nangam mais xam nga ne dóoru góor xajul ci jigéen. kon je que man man man sama xalaatu bopp tey jii. fu ñu woowee Kali. Mhm. yow sa bopp war nañ laa woo. d'accord ah, ah, dikk ci loolu rapidement ñu jàll donc sa commentaire. waaw daf lay concerner parce que sa xalaat la. Mhm. mais dama ko respecté. absolument mais gis nga àtte dóor ci góor ak jigéen. Mhm. ñàkk màndu la góor jigéen dóor na góor ba mu dee. ci àtteeg dóor dóor jigéen lu dagg baaraamu kali mattam bi métti na te sa sœur du la ko def mm-hmm. mbir mi du santiment du jënd du góor ak jigéen mbir mi dëgg la moom su amoon manque de respect ba taxaw ci kanami procureur comme ni mu ko amee ci kanami ndeyam bi ko jur suñu société doo jotee sa yaay tiim la mënut la àtte ba jàmbur di ñëw c'est pas vrai mm-hmm. mënul nekk yaa ngi dégg bu demoon ci kanami procureur respecté wul institution institution bi procureur doon. mu def ko ma màndu comme bu njëkk. ma ñëwaat di utaat solution di ko àtte mu defaat ko dinaa protéger suma bopp ngir mu bama parce que su ma rayoon yow li do biñ ma dóoree Medina defoo ci dara danga ma invité rek laaj ma ma wax métit bi ñëwutoon ci yow. d'accord mais dama ko dama ko condamné dama ñëw dama ko condamné mais mais ma ñëw waaw ah. biñ ma dóoree Medina métit bi ñëwut ci yow la ma fajoon jógewut ci yow donc dama ko dund protéger suma bopp ngir mu bamal laa def dëggalu ma ngir am fit parce que am fit ak dof du benn mais damay dëggal suma bu baax bi pas dóor bi bu baax mais kii daf ma laaj ma tontoo ko noonu. comme bu baax bi damay dëggal ne dóor naa mais dóor ak fayu du benn bu respecté woon yaayam man du ma fa yegg parce que yaayam fa laa ko fekk. den ma war a woo man ma sawar ñu woo. mais yow da nga ñëw pour arranger. donc donc da nga ñëw pour mais mun nga ma may ma daane. encore da nga ñëw pour arranger. yaay ji ci boppam mhm. fa laa ko fekk lu tax woowuñu ko seede te dóor na doomam ci suma kanam dóor yu ëpp yi ma ko dóor te kali waxut maa dóor xale bu jigéen waxut maa màndu wax li ma def fekkee woo ko te su ma dóoroon ñaar ne ñaar ndax fenn kenn du ci dimbale nit man maa ko wax nga dégg pour lan bi ma waxee yow nga dégg ma ne yaayam dóor na insisté woo ci bu yaayam mhm. pour lan bi ma ne def ma dóor ma muñal ko ngir am naa rak si xale bu jigéen nee na yow dóor nga a ma man bi mu waxee bi mu dóoree dama ko bàyyi ngir jigéen la xale la situation bi te damay at mm. mais su ma waree dóoraat xamoo nu mu safee xamoo ban intention lay dóoree mun naa protéger suma bopp ci boole loxom bi ak ak moom noonu laa def euh, ci vidéo bi gis nañu xale bi xale euh, bi Ahmed Cissé xale bi mi ngi naan la euh, jox wax ko mu jox ma sama téléphone waaw man la doon wax. waaw pour ma wax Kali. mu jox ko téléphone am mais pas man. d'accord euh, bi nga gis nañu euh, vidéo buy circuler buy xam ne ni sax yow euh, bi ngeen demee ci gendarmerie ci audition bi naka la demee woon yaa pour ñu ñëwaat ci rapidement parce que dégg nañu nga ni daf la ko bëggoon sëf jiiñ la ko. waaw xam nga bi mbir yi amee. Mm. <coughs> man yu bëri avant ak après. Mm-hmm. su amul important du ko wax parce man ba ma far te dama koy wax mu leer Kaliphone laa faral par parloo dama koy bañ mais far duma ko bañ te lu ñuy jiiñ kal yëpp bu ko defoon bañ convict ko man moom laa faral d'accord parce que loolu laa jàng loolooy suma conviction bi ñu toogee ci gendarme bi ñu ñuy laaj mm-hmm. moom dafa expliquer ba pare man bi may expliquer ma wax lii ma wax man musuma changer virgule bi may expliquer ba pare gendarme bi déglu laajaat kali ku ko dóor kali joxoñ ko na ko man ci ban anam la Kaliphone nekk comme xofkat par rapport ak euh, bu génnee ci image yi ci euh, live yi muy def ni muy mel. Mm-hmm. tapet la wane foofu wala. non du ma mën a wax loolu sama xarit la. sa xarit la. mais est-ce que booy far ak nit doo far nit ci dëgg aussi. sama xarit la moo tax nga am position bi. non ba tey yaa indi dëgg ak fen mais yonantu daf ne. Mm-hmm. sa xarit sa mbokk bu tooñee faral ko. faral ko buñ ko tooñee faral ko. ci nu mën a de demee. maa ngi ñëw mais bu tooñee am na position boo ko war a farale buñ ko tooñee am na noo koy farale mm-hmm. buñ ko tooñee fexeel mu jot dëggam. comme bi ma seetaanee suma vidéo gëm ne man leen tooñ mu jox ma plateforme ma wax. waaw munu ci dara du avocat du juge. Mm-hmm. man bu kali dama ko naan frère dëgg-dëgg yaa daanu ko. neen dem ñu baal mm-hmm. lii laa wax. yaa yàgg ngeen. non àggaguma ci loolu parce que. mais mais Kali non yow ak yow yàgg ngeen xamante wala. Kali non non yàggul euh, du mun a wax ne yàgg na. Mm. because euh, ci année bi la te at bi yàggut. d' accord am na ci ñu naan d' accord rapide rapidement. laaj boobu man dama déglu ay waxam. Mm. Euh, lan moo tax ba xale bu jigéen bi yow di lay dóor di lay dóor ba yow nga mujj lan la qu'est-ce que c'est lan la. thank jërëjëf Cheikh. waaw li moom a jaaxal. Mm-hmm. waaw xam nga problème bi mooy. loolu la man loolu laa bëgg a xam. moom laa lay expliqué. Mm-hmm. ñoom bi ñu ñëwee suma kër. Mm-hmm. dama leen teeru teral leen am ak ñoom jàmm toog suma néeg bi ñuy dem ne leen de mën a leen dew ma ñaari fan ñetti fan dew ma mu problème am ma ñëw mun a wax kali demal taxaw na leen kali taxaw ma ne ko noppil te kali mag na ma 6 mm. ma ne ko noppil mu noppi. ngir bëgg coow jeex ak bëgg jàmm yaayam bi ko jur mu ngi taxaw. su fi toogoon du weddi virgule bi ma ko ne maire na nga def daf ma fay ni ma tourné di wax ak Adja rek mu commencé daj di dóor. di dóor Adja. man ajaar di ma dóor man. Mhm. te yaay ma ngi taxaw vigile baa nga taxaw. waaye lan moo wax loolu moo jaaxal àddina man non mais c'est attends parce que xam nga leen dafa am yow. Californie dafa jël euh, Adja indi ko seen kër. non non non. si buntu bi buntu bi ñoom Adja loolu xewee. waaw non non leeralal. voilà voilà mhm. ñëwal ci loolu indiwul Adja suma kër. voilà léegi waxal mu leer xam. non leer na. waaw Mariama bi ma doon dimbale pour mu am dëkkuwaay. Mm. waaw moo doon indi bagage am àndaaleeg Adja ci kër gi. mu àndaale Adja seen kër yéen. mu waaw suma kër ma. foofu noonu. Mhm. la fekk Kaliphone wala kalifon fekk ko parce que Kaliphone dafa am clé suma kër. Mhm. waxtu bu ko neexlee dugg waxtu bu ko neexlee génn. Mhm. foofu suma kër la man maa ko maa may. donc fa laa ci yem. ok ku jox sa numéro sa moroom ku laajte ku présenté xaw ma maa ngi suma néeg toog ñoom ñu ngi ci salle bi bi coow amee ma dem taxaw fekk leen seen buntu kër ci oto Kaliphone. Mhm. yaay ajaa ngi taxaw. <coughs> Adja Kaliphone a ngi dendoo sësu nekk ci coow li. ma séparé Kaliphone ba mu taxaw na leen ma ñëw pour wax ak Adja mu commencé dóor ak saaga. d' accord nii la demee dégg nañu dégg dégg nañu ci ay euh, ci ay euh, wax ñu ne sa kër maanaam euh, dafa mel ni ab auberge ci jigéen ñi dañuy dugg ak génn. kàddu yooyu lan nga ci wax parce que doon na loo xam ne jamono yi ñu ngi koy wax mi ngi fës ci réseaux sociaux yi loo ci doon. Ah, yow tamit fii Sénégal ça me dérange pas. suma kër la. lu ma xam daal mooy ku ma neex mooy dugg. waxtu bu ma neex lay génn maa ko moom. ah merci si lan ngay liggéey nga wàllu foofu ah. Mm-hmm. Euh, man man man damay damay jaay ay garab yu góor yu baax. Mm-hmm. ba pare am naa société damay bokk ci marché public léegi-léegi ma mos tuuti ci DRP. Mm-hmm. début bi liggéey rek laa gëm. bi ngay bi ngay door dañu noon euh, dañu doon la gis ngay def euh, ay interview di wax ci loo xam ne daal mbirum islaam la di indi nit ñi waaye ñu toog ay jëmmi jamono gis ci yeneen vidéo maa daal ngay waxee ci ay anam yoo xam ne ay waxi saay-saay daal maanaam ci yi jëm ci ay awra nga ci wax ay diw bu ma ko de bu lii demee nii lii nii la war a mel ak awra jigéen lii la war a mel loolu euh, changement bu gaaw bi lan la dafa dem sax ba après est-ce que du loolu moo tax sénégalais euh, bërngël la xoolatuñ la lijjanteetuñ la wala sax mën naa ne sax jéppi la non daf leen di concerné ba tey ko sopp ma jéppi ma loolu yow la sa sentiment la. du sama na mais waxuma yow damay tontu wax ji. d'accord du yow de waxuma mm. yow dangay ngay waxee ci askan bi mm. ma leen di tontu. ki ma sopp ak ki ma jéppee yam ci man ndax duñ suma borom te mm. duñ ma àtte. ku ne sentiment bi nga am ci man yow la merci mais man. jaayuma garabu nopp. jaayuma garabi oom. garabi awra laay jaay. te ci fiqhul islamiyya dañuy waxtaanee awra den koy jàngale. mais nee nañ waxu saay-saay nga koy waxee. non ci dégg-dégg ma respecté ko <coughs> ci problème. Mm. parce que nit day toog sax di wax yàlla ñu ne gëmut la muy wax. d'accord maanaam jugement wu nit ki man. <coughs> dëgg dëgg respecté naa ko ah, xam nga man man aussi benn instant euh, dama gis ne Cheikh Ahmed Cissé euh, moom militant tout les sauces. Mm-hmm. parce que Cheikh bi ma koy bi may xam Cheikh ak jékki-jékki Cheikh euh, mais foo tourné gis Cheikh. xaw ma kañ la xam ak Kaliphone kañ la xamante Kaliphone mais Cheikh il est dans toutes les sauces ci réew mi loolu aussi war war war nañ ci def point benn. beneen bi aussi mooy man dama jàpp ne Cheikh da nga yàpp sénégalais yi man Mass dama jàpp ne yow da nga yàpp sénégalais yi parce que yàpp sénégalais yi mënta weesu Cheikh nga taxaw devant tous les sénégalais naan damay nampak damay war ci xale yeeg am na yoo xamante ne aussi bu fekkee gëmoo ko te gis nga bés man ban gëm naa ne yow warootoo wax ci diine. bu ñuy wax atti dëgg parce moom diine non du question la wax ci diine yow parce que la fait que tey diine dafa am ay worma yu mu àndal nga toog di wax gis nga tey mën nga jàngale yonent bi dafa jàngale lépp ci ci ci ci ci diine mhm. nëbbul dara mais nga taxaw di wax awra bi nii mais am na kersa goo war a utiliser am na loo war a utiliser ba pare dafa am loo xamante ne tey jii euh, gis nga tey maanaam jikko ju rafet da koo nanguwul man may wax ak yow da koo nanguwul que yow en tant que nga nga nga nga wax ne da nga bokk ci euh, kër waa kër Baye dama la ko mos a wax. non mais ñëpp xam nañ ne ñëpp xam nañ ne fa ngay fa ngay woote. waxal ñëpp non non yàgg non yàgg nga wax yàgg non dafa nag dafa dëgg moom yàgg nga woote loolu soo paree soo paree nga même ñëpp xam nañ ne nga bokk taaliba bàyyi nga dinaa muñ déglu la mais ñëpp xam nañ ne taaliba bàyyi nga doo taaliba bàyyi non wax rek est-ce nga mais man li may wax mooy euh, côté boobu may wax jàpp naa ne war nga ci xoolaat sa bopp bu baax a baax parce que nit bu ñu lay sopp ci yenn yi buñ lay sopp ci yi Cheikh Ahmed Cissé nangam ak nangam ñu ngay wax ci diine ñëpp di du ko rafetlu nga jékki-jékki changé carrément mm-hmm. man ni man cheikh bi moo daan gis ak cheikh bi beneen cheikh la mm-hmm. di wax wax yoo xamante ne di attaqué ay homme politique benn ñaar Euh, lu may soos bu ne xoola soos bu ne nga dugg ca ñett aussi yàpp senegale yi dama koy wax yàpp sénégalais yi mënta weesu mhm. taxaw jàkkaarloog nit ñi nan damay nàmp ci xale yi damay war ci xale yi mhm. pour man loolu yàpp sénégalais yi la toog naan bi bu gudd beeg nangam ak nangam Cheikh aussi man pour man war nga xoolaat sa bopp ci yenn doxalin yi xam nga lii du laajte mm. mais du maa ngi ñëw mu daaneel la mu maa ngi doon muñ déglu la da ngay muñ déglu ma. Mm-hmm. lii du laajte commentaire la. mu concerné ko moom. yëpp sénégalais yi première kan mooy sénégalais yi. noonu. c'est pas ñu far ñenn ñooy sénégalais loolu du dëgg. sénégalais bi lu waaye wax mu ànd ci kenn keneen bañ ko da nga naan yëpp ñenn ñi li may def am na ñu mu saf am na ñu mu neex commencé par man. commencé par ñi nga xam ne dama den ma bëgg benn ñaareel ba man suma wax ci diine ça c'est pas vrai damay wax man su ma wax bi ma concerné su laajee indi aaya ma indi su laajee indi hadis ma indi mais pas wax ci diine. et loolu danga may may maas. waxtaanee diine loolu diine la. ñëw yeggali rek rapidement waxtaan ci diine. <laughs> quand même dafa am ñu koy waxee soo amul xam-xam doo xam li may wax. ki sol mbubu diine di ci waxtaan mm-hmm. mun nañoo wax ne imam bi toog ci minbar bi di xutba lu mu fa wax dafa war a wax lu yàlla wax ak yonent mais benn Cheikh Tidiane Gomis buy commentaire football ba yegg si Sadio Mané def mu ne subhanallah nga ne eh, wax na diine bi bi Cheikh dama bëgg a xam yow may ma ma daaneel ci ma non non point boobu il faut ñu dugg ci da dinaa ci ñëw mais di nga ma may droit ma tontu waxoo ci diine euh, mais donc may ma ma daaneel fii dama dama bëgg nga comprendre que man wax bu nekk ak palaasam mm-hmm. ku dem ci duus simmeeku mais ku la vidéo wan ko nit ñi duñ la dafa yeb nit ñi def taatu neen te ko mm-hmm. vidéo moo yeb nit ñi suma personnel TikTok trois heures ci guddi ba bërset ku fa dagg wax teg la ko moo la yeb mais ñëwuma fii place publique fu mu mel ni Walfadjri mm-hmm. di wax waxi xamat invité nga ma mosul am te wax bu nekk ni nga ko interprété lay ñaawee kuy jàngale mbirum awra da nga koy tudd sa xeet yow fi nga bokk dañuy bañ dëmm lu ñuy wax niti guddi hmm. mais su dëmm bi lekkee liir bi danga daan dëmm bee ko lekk waxin bu nekk ak palaasam. fi kulli xaalim maqaal fi kulli maqaal ma tontu non da nga ma tontu comme ñu wax ma wax ma nga dugg ci ku ne nga attaqué lu ne nga wax ko mais mënul déglu yow damay damay li tax mën nga ma expliquer mën nga ma ngeen baal ma mën na mën nga ma expliquer non dafa nànk mën nga ma expliquer damay nàmp ak damay war ci xale yi non loolu yow yaa ko dégg moo la ñor li yow nga ne yow yow nga ne dama doon wax diine pourquoi nga jéggi diine laaj ma li parce que da nga bëgg nàmp di ci wax yow yaa bëgg nàmp loo bëgg rek nga wax <laughs> dégg mais moom mu ne <laughs> mas mu ne dama doon wax ci diine <laughs> moom moo ko wax léegi pourquoi mu romb diine dem si nàmp parce que ci nàmpkat yi la bokk dafa bëgg dégg lu euh, mu bëgg lay wax xam nga li ngay wax ni li ngay wax ni yow

xëy na pour jokkoor maajoor jorka leen dañuy waxante xëy na pour pour leeral yow laa koy wax yow laa koy wax yéen ñaar ñi nekk si plateau bi yëpp laa koy wax parce que ñun ñoo bokk plateau bi ñun ñoo bokk plateau bi ñun ñëpp yaa ngi dégg li ma bëgg a xam mooy parce que Mass mi ngi wax yow nee nga ko sa compte TikTok nga ko defee mais dem nga ci benn site internet boo xamante ne c'est très suivi nga nekk fanaan ay da ngay nàmp ak da ngay suppu galañ ak da ngay euh, wëndeel ak da ngay da ngay kii musuma wax damay wëndeel wax ma li ma wax mais wax nga dañuy nàmp ak da ngay non yaa ne man ma ne damay wëndeel man sama orma man personnellement sama orma may ma ma toog ci télé di ko répété mais nee nga da ngay nàmp teg ci yeneen yoo xamante ne xëy na man sama orma dañuy sa orma may na laaj ma ko ci la nga ko parce que sénégalais mhm. ko wax man la neex man la concerné yow la concerné bëggul bàyyi d'accord ci laaj bi mu wax rek ba xam am nga soxna am personnel la su ma jabar nga wax waxoo ma ci kaade danga laaj man personnel ndax am naa jabar mhm. su ma affaire la tontuwuma euh, d'accord sa digganteeg euh, famille famille Kaliphone d'accord mi ngi noonu sa digganteeg ak euh, famille Kaliphone mu mel ne xeeñul neex bu waaw parce que niñ taxawee neexuma problème bi mooy Kalidou suma mbokk te bii mu amee ñoom dañu taxaw naan sëriñ bi dóor na su ma neexoon ma bàyyi ci. lan moo tax ñu naan la sëriñ bi. ñoo ñoom ñoo xam nga Sénégal mm. dañu bëri orma ba suñ la gisee ngay màndi sa ñu naan la ajaratu te demoo Màkka. Mm. teraanga Sénégal la peut-être man bëgguma doon sëriñ bokkuma ci formu sëriñ ci Sénégal neexuma. lii koy yàgg naa ko te man laa wax neexuma bokkuma donc ni ñuy doxalee ci man wax ko loolu laa leen tontu mag ji def ne seen xaritoo yàggul mu ne musuta ñëw ci kër gi mu ne bi mu xewee ba léegi ñëwut. Mm-hmm. seeti woon nga Kaliphone. noo man duma ko seeti. te moom man ci seeti wax nañ ci. non ñoom ñu ne engagé wu leen waxuñ ci de. mais kenn woowul kenn convoqué wu la. nee na engagé ma convoqué maas. kañ la convoqué jeudi. non xaw ma ndax jeudi la mais convoqué nañu. mais buñ la convoqué am na am ñu convoqué la. Mm-hmm. dinaa ko xool su ma ko gisee tontu la ci. lan non nga leeral sénégalais yi. par exemple ah, mm-hmm. man dama jàpp ne. Euh, encore une fois damay d'accord damay d'accord ma préciser rek amul benn problème personnel ak yow. Mm-hmm. dama dama am xamante dama lay expliquer benn affaire. xam nga tey ji par exemple yow da nga fekk yow da nga bokk ci ñi ñu war a Ahmed parce que xamoo tax. yow danga nekk ci biir oto bi te dëggal nga ne duma nga xale bu jigéen bi. yaayu Adja bi dóor Adja te man ma fekk ko fa. wala yaayu Adja concerné wu ñu xamu tax. la non non mais ñoru ma. mais bu dee dossier bi moo la ñor ak dëgg. mais xam nga xaaral maas yow mënoo dóor xale bu jigéen bi. non da naan mënoo fayu su dee da nga wax wax foog mu màndu quoi. Ah, wax day màndu. Mhm. da nga naan xale bi mënu la dóor nga fayu loolooy màndu te ci wax. wax day màndu benn su dee seede rek la mhm. te dossier bi ñor la mais pas Cheikh Ahmed comme ni nga amuñ problème personnel parce que xamante wuñu xamante wuñu mosuñ seeq dara mais dama fa fekk yaayi Adja man da seede la fekkee moo tax ma doon seede ma fekk fa yaayi ajaa kon moom qualifié na pour doon seede